Euh, maa ngi tudd Ndaraw Thioune nekk euh, président Revas euh, départemental bu Mbour léegi ci bir loolu yi dañu wax né naka la def pour djema participer ci li nga xamanteni mom moy développement dëkk bi développement dëkk mom pour nga participer ci yakarna faaw nga wër ñu ne woon nag pourquoi pas ñu bissé ak wa hôpital bu Grand Mbour djema a naka la def pour jappalé leen ci li nga xamanteni mom mom réew mi yëpp di joy muy rupture bi nga xamanteni rupture sang la bu am ci réew mi ñu ne woon nañ djema japp ci loolu seet ba xam naka la def pour aider leen ci problème sang yalla dimbalé nañu nak biñ ko koy def ci suba ak léegi peut-être xaj na ni ñu ko doon xaar rek ni mu amé amna différence mais nak sante yalla bu baax a baax parce que lu mu néew néew am nañ fi euh, soixante et quelques postes de champs automobile yépp 13 corps de métier yi ci nekk jéem a naka lañuy def pour secteur bi fi mu toll par rapport ak ni ngeen koy waxé euh dañu xaw a des ginnaaw par rapport ak li xew ci jamono léegi auto yu bees yi ñu jéem set naka lañuy def wut ñu ñuy accompagner par rapport ak lolu pour suñu xalé yi tamit formation yi gëna a yaatu parce que euh, maanaam niñ ko niñ ko niñ leen bëgg a jàppale pour formation bi gën a jaar yoon amaguñu possibilité yooyu xaj na nag ñu ngi koy la waaye li ñuy wax daanu dajul suuf ñu bëri euh, ñu ngi koy ñu ngi bénéficié woo yenn formation yi mais pas lépp parce que boo xam tey jii boo boo recensé woon li mécanicien biir Mbour wala ci département bi euh, euh, lim bi dina dina bëri mais daanaka liñ ci def daanaka àggaguñ ci sax un pour cent bi kon donc ñu jéem a seet naka la ñuy def rek pour mu gën a yaatu ba ñëpp jot ci. naal ci lañ dëkk ci lañ dëkk dëkk bi moom ci lañ dëkk mais tamit comme ni mu ko waxee rek bon am na ci loo xamante nit ki moom fi nga mën a yem rek nga yem li ci des nag dafa am autorité yoo xamante ñoom loolu ñoom la ñu ngi ciy def ay jéego nag di jéem seet naka la ñuy def am possibilité yooyu noonu accéder ci ci suuf si maanaam ay garage yu moderne yoo xamante ni moom peut-être dinañ mën a jàngal xale yi ci njàng mu mucc ayib espace groupe de de de président national vraiment damay interpeller état technologie biñu ñu ni mécanique kenn mënu ci former ni ci bi fan wala juroom benn fan. formation bi ñu wax biñu bëgg ci technologie dañu wara former nit ñi ci 15 jours au maximum budul 30 jours ci 15 jours au minimum mais dañuy jël nit ñi di leen former ci 6 jours wala 5 jours loolu moom ñu ngi koy wax état vraiment dañuy wax waa mbuur yëpp nañu gën a jàppoo nekk seen ginnaaw président ndax combat bi nag fépp la ci Sénégal ah président Louga mi ngi nii taxaw Louga combat bu mel nii lañ fa mën ba ñu dagal leen 3 hectares yaa ngi dégg aménagé nañ ko defar lépp ba mu war fa dem def pose première pierre kon loolu lañ bëgg ci mbuur bii ñu ñëw nii kilifa yu mbuur yi maa ngi wax ak ñoom di interpeller le président de la république di wax ak directeur cabinet président bi nga xam ne mu ngi dëkk fii ci mbuur ak le député Sira Ndiaye ak Pape Amadou Ndaw mi nga xamni ñoo fi dëkk ñom ñëpp ñi ngi ci wetu président de la république wa Mbour soxlo nañu ñu dagal leen site de recasement mu am centre de formation bo xamanteni vraiment fi lañuy former xalé yëpp ñun loolu lañuy xaar ci